abonné go cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lan moo ci des bala ngaa dem muy loxo bi jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wone ni aimé nga vidéo bi te li nak do ci fay dara te dinañu jappalé ci liggéey Bismillah, Bismillah, ina wali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, Mungkin ingin dibahas tentang siapa, tentang bahwa di New Fit Senegambia TV. ku ne xam ne ne at mu jot euh, xamoo ngeen ko ci waxtu wi ñi ñëw ak yéen ci naafile yi nga xam ne maanaam Serigne Souhaïbou Mbacké moo ko saytu boppam ñu koy jëlee ci téeréem bu sell bi nga xam ne moom moo ko bind ci loxol boppam di xoratul ayni di téere bu mag bu sell boobu nga xam ne dañ koy fare fara di jëfe ci wàllu weeru koor ci gën a ëpp doole bu ko defee ñu ñëw ak yéen ci naafile di ci ànd ak waa Actualité naa terminal de Badji yëpp. rawatina waa Sénégambia TV bi nga xam ne tey mooy ñu seen plateau. première guddi bi mu nekk lu am solo loo xam ne saa su ngeen ñu dee topp fii ci Sénégambia TV danañ leen ciy ñëwal ci chaque jour ak ci waxtu ne kon képp koo xam ne maam bëgg ci ay leeral ak lu aju ci wàllum naafila yi ak yeneen yi cay aju bu la neexee mën ngaa jël suñu numéro moo ngi noon di affiché ci écran bi ci suuf ñu ci ànd ak waa Sénégambia TV gépp ak waa Actu Yadd sa terminal di leen jox di daje ah, weer wi ñu séntu yàlla egg seeg jàmm te dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin ci barke alquran jërë ngeen jëf.